mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. danaa ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sangu-sang yi seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam. sallam tey nag ni ngi leen ñëwal ci bis bi nga xam ni moo daan am saasu ne muy bisub yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kiko ki ko amal di ko defal muy doomi naari darmanko bi kooku nag di ajratu aji njaay yor daayira bi nga xam ni mooy daayira Chérif Bahayda nekk jëwriñ gi di la présidente xam ngeen ni at mu jot kii nga xamante ni si day sangam di Chérif Bahayda ak nu mu toll ci réew mi daayira ni ñu toll diggante fii ak Nimzaat ba bitim réew mu jël ko def ko jëw jëwriñ ni ko yow yaay sama présidente daayira moo tax bis boobu nag bu agsee ñu koy def fii ci HLM xam ngeen ni Adja da koy ànd ak ay bokkam yi mu am yépp ndax moom wootewul benn bis nee na bis ma woote mooy bisub yonent bi sallallahu alayhi wasallam Adja moom nag di doomu ajaratu Koura Ndiaye mu baax mi ki nga xam ne ni moom daa jël léppam rek jox yonent bi woy juróom maam Ndiaye ma kodd nekkoon ancien maire bu saint wi doonoon nit ku baax nit ko nit ku yiw koo xam ni léppam da koo joxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ajaa moomu nag alxaaji abdu amar la ñu wooyu mooy mooy baayam alxaaji abdou amar bàyyi cheikh amar mi ñu tuddee cheikh amar mii moom moo ko jur bàyyi cheikh amar nag maam ndaagu amar mi sëriñ tubaa ko woon sama sas wi de kenn mënu ci te yow mal xiyaam bu yàlla dee fay bokk na ci ñi muy njëkk a fay ci ngay bokk ndax lu ma mas wootee rek kenn kenn kenn kenn kenn mënu la ci ñooñu nag ña nga jóge njarne jóge fële ci jéemul seeni maam ñoo toppoon yonent bi dar ko sallallahu alayhi ba yàlla boole leen ak Serigne Touba Xaadim Rasul gis ngeen bi ñu xëyee suba gannaaw njàngum alxuraan bi nga xamante ni si def nañ ko ak bernde yi bokkam yépp teew nañ ñi nga xamante ni si yàlla def nañu bokk ak moom sax liggéeyukaay bi muy Amar Holding ak waa ABE ba ci ministère de l'intérieur bi nga xam ne fa ajaa nekk ñoom ñëpp ñëw nañu ànd ak moom ci bis bi muy bisub yonent bi sallallahu alayhi wa bi ñu fa yendoon nag ba def añ ba noppi bokkam yëpp ñëw teew yaayam ju baax ji nga xam ni wolof dafay wax ni ku donn ku baax ku ne loo baax doyul la mu liggéey ci seen kër baay alxaaji Abdou Amar mu baax ma te yàlla sotti ko ci njabootam gii te bëgguñu leen wootewuñu leen lu dul lislaam rawatina ajaa mi nga xam ni dafa jàpp ci bis bi ànd ko nag ak ay frère ku ci mel ne Cheikh Amar moom Serigne Saliou nga xam ne bis bi bu ñëwee daana ko da koo jàpp muy bisu boppam ndax xam na ni kii di ajaa di léppam daf ko jox yonent bi ba mu jeex tàkk ànd ko nag ki nga xamante ni sii mooy Sidi Amar Sidi Amar xam ngeen ni moom li may wax naan nit la koo xamante ni si ay waxam bariwut daanaka foo fekk maanaam ci liggéey bi yonent bi rek ma nga ca biir te du ci bëgg a feeñ. Adja ànd koog nag ki nga xam ne tamit sëram la muy ajaratu na moom ñu koy ñaanal moom it gis ngeen ko ci liggéey bi yëpp gannaaw bi ci mbokkam yëpp teewe ak i bàjjanam fu nekk nag ñu jóge fa. gis ngeen borom këram muy dut si mi nga xam ni doomu ndar boobu jikko joo xam ni yaa ngi koy xool ci nit ku baax rek boo ñëwee ci dut si yaa ngi koy fekk ci moom ndar-ndar la boo xam ni waxam bariwul ndar-ndar la boo xam ni ay jëfam daanaka moo ëpp li muy wax nekk nit ku maandu bokk nag ci ñi nga xam ne ñooy jàppale kii di Cheikh Amar mu nekk boroom këru Adja moom it gis ngeen ko ci bis gannaaw bi ñu defee loolu yëpp nag añ ba noppi gis ngeen nit ñi mbooloo mi ni ñu bare daf fi jóge nag ñoom ñëpp ñu àndandoo dem ci li nga xam ne mooy cérémonie officielle bi Chérif ay Aïdara di def gis ngeen bi ñu duggsee xool leen mbooloo mi ni ñu bare njàng mi gis ngeen bokki Chérif Bahady yëpp ñëw nañ teew Chérif yëpp fu nekk rek Chérif jóge na fa ñëw teew li nga xamante ni li nga xam ne moom mooy guddi yonent bi bis bi nga xamante ni si da koo delloo maamam Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ñu fa jógee ba noppi ñoom ñëpp dañoo delluwaat bi ñu demee nag kër Adja gan yëpp même ba ci Chérif gan gan gu gën a fonk rek yóbbu na ko ci kër Adja ndax bisam boobu muy taxawal foofu muy bis yonent bi ñoom bi ñu añee bi ñu reeree ba noppi nag kenn ku ci nekk ajaa defar na fa gis ngeen xéewal yi xéewal yi xam ngeen lii. maanaam bëgg yonent bi rek moo ko waral defar ay xéewal kenn ku ci nekk booy dem mu yëkkati mbuus mu baax daanaka jox la ko nga yóbbaale ko boole jël ay kopparam di leen yi ngir yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye wolof njaay nag dafay wax ni ku doon ku baax ku ne loo baax doyul waaye amar nii rek nga war a mën a def waaye amar nii rek nga war a mën a doxee waaye amar nii rek nga war a mën a taxawee ndax say maam ñoo ñoo daroon yonent bi kon soo daree tey sëtu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wàcc nga say maam la sëñ tubaa sa maam la sëñ tubaa ma bàyyi ndaagu ni woon yow de kenn mënula ci sama liggéey bi te lépp lu mu mas a wootee daanaka yaa nga ci kanam te kenn mënula ci ñàkk ñàkk bañ a man boobu ñu ko ci man nag moo tax ku mu jaboote kenn du la mën ci yoonu lislaam boo xoolee Cheikh Amar xool ko ci kër Serigne Saliou la ko Serigne Cheikh Saliou wax la ko Serigne Saliou mbàkk teral barki démb rek la jógee xel koom la mu fa def ba ñu jëw ko jëwriñu kër Serigne Saliou xel koom xam nga ne loolu moo wàcc njabootam gi ba fépp fu ñu mën a nekk rek jëwriñ rek lañ lay def kon nag euh, Ajaratu Koura Ndiaye suñu yaay ñu ngi lay jaa jëfal di la yàq sa njaboot gi lépp lu ngeen nekk rek yàlla ngeen ci am ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki leen ko doon présenté nag mooy Assane Gawlo Mbuub Assane Gawlo Mbuub fii ci Allo Dakar TV ànd ko nag sama caméraman muy euh, Alxaaji Baara Seck moom mi nga xamante ni si daanaka fu ñu jëm rek ànd ak moom ci liggéey bi Allo Dakar dang lii rek mooy liggéeyam lépp loo xamante ni si diine la wala muy wàllu social lu mu mën a doon dana ci jóg ànd ak moom ngir wan ko askan wi ah, la sëriñ saali doon wax nag ba ko sëriñ tubaa ni ko lin xaaditi ujuuru wal masaaliw bi tey iwal jës bi wa inni saaliw saaliw mii de sama doom la am na liggéey boo xam ne manqué na am de eh, waroon naa koo def xëy na jot bee ko mayul te doomam dina ko defal muy ab liggéeyu tool keroog bi nga xamante ni Serigne Saliou woote na ko ba ni mu fi jógee bàyyi fi doomam doomam ju baax ji kenn mënu ci Cheikh Amar ba ñu def ko jëwriñ kon bu ñu wëlbati koo def jëwriñ ci kër yonent yàlla Mouhamed ajaratu Amar Adja Amar mii ci kër Cheikh na Cheikh Sadbu kër Cheikh Mouhamed Vadel kër yonent yàlla Mouhamed war ngaa xam ni kon la seen maam yi doon liggéeyal yonent bi suñu borom nangu na ko yàlla na yàlla wéral yàlla na yàlla yokk leen. yàlla may ñu teew ko ay déwén yu bare bare bare bare bare bare bare bëri le 7 décembre la woon édition bi nag nii rek lañ koy defee at mu jot ajaa nag kenn manquéwul kenn manquéwul kon yàlla yàlla yokk leen ci darajey seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim jërë ngeen jëf